بالواجب في المريم alhamdulillah alhamdulillahi rabbil alamin ya rab alladi hadaana li hada wa ma kunna linahtadiya lawla an hadaana allah wassalaatu wassalaamu ala sayyidi albashar sayyidina wa mawlaana wa nabiyyina muhammadin wa ala aalihi wa sahbihi نجوم المهتدين ورجوم المعتدين وأزواجه وتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين آمين mbokki daara ji asalaamaaleykum delsi ci seen émission Zaman tey ci altine ji di 9 septembre 2024 ci numéro 358 di juróom benn fal ci rabiul awal weeru gàmmu 1446 ci gàddaay gi tey nag kom dañu nekk ci weeru gàmmu dañuy ñëw rekk fàttali jëme ko ci sunu sang bu tedd bi alayhi salaatu wassalaam ci melokaanam ya ci jikkoom ya ndax gàmmu looloo di njariñam di fàttali melokaanu yonent bi di fàttali ay jikkoom ndax bokk na ca lay yokku cofeel mooy xam ak dégg gi ñu lay melal melakaanam nga xam ni yamul ak kenn waaye nga jële ca njub ak defaru ngir jikkoom yu baax yi nga xam ni moom la loo lay nettali alayhi salaatu wasalaam ashraful xalqi ci jikkoom yu mat ak bindam bu mat ci melokaanam yu rafet moom rekk la ko yàlla jagleel mu wéet ci nag amul kenn ku ñu koy gam-gamleel ba mu nuroog moom baa ñu koy tolloleeg moom ba mu yemook moom ci kaw suuf amul li jiitu ak li mujj boroom xam-xam yi melal nañu ca nanga nga xame ni noonu la mel saxaaba yi nga dundoon ak moom ñi nga xam ni ñoo la mën a wax yonent bi alayhi salaatu wasalaam naka la meloon danañ ci ñëw lenn ci ay ahadis waaye itam lenn ci ay aaya qur'aniya Busayri ma nga naan fa huwa allazi tamma maanaahu wa suuratuhu summa stafaahu xabiban baari un nasami munazzahun an sharikin fi maxaasinihi fa jawharul xusni fiihi gayru munqasimi yàlla nu yàlla fayal Busayri nee na kii di alayhi salaatu wasalaam léppam mat na léppam mat na jikko ji mat na melokaan wi bind bi mat na foo ko làmb rekk foofa day mat sëkk bu dee ci askan la askan wa dafa mat sëkk set wecc ci ay ayib moo xam ci wàllu ndey moo xam ci wàllu baay fa huwa lazi tamma maanaahu boo ko xoolee ci jëmm ji doo ci gis sikk wa suuratahu kon daal yonent bi alayhi salaatu wasalaam kenn la mooy léppama mat jikko ja dafa mat amul lenn looy xool ba xebet ko ci moom ci doxalin wala ci jëfin ba ci melokaanam muy koo xam ni yàlla ko tànnal boppam def ko mu di soppeem su mastafaahu xabiban bari un nasami ashraful xalqi muy kenn koo xam ni amul kenn ku nuroog moom ci lenn ci ay may yi ko yàlla defal jagleel ko ko mu wéet ca foo ko natt rekk boo demee foofa du fa yemoo kenn ci lenn nag waaw munazzahun an shariki fi maxaasinihi ndax moom kat fa jawharul xusni taar daal fa mu yem moom alayhi salaatu alayhi salaatu wasalaam fa la dale moom fa taariyam fa la dale kon kenn du ko féete kaw ñi rafet ñépp bu ñu boolee seen taar moom alayhi salaatu wasalaam fa la commencé jëm kaw alayhi salaatu wasalaam Qurtubiyu nee na alayhi salaatu wasalaam ci matuk gi nga xam ni moom la ko yàlla matalal ci ab taar ci rafetaay lu fës la ci ñun lu feeñ la loo xamante nii dangay xool gis làmbu daj waaw da xool gis làmbu daj moom alayhi salaatu wasalaam doo ko xool ba gis ci moom sikk du wax ba nga dégg ca wax ja sikk du jëf ba nga gis ca jëf ja sikk ashraful xalq mu nekkoon ku yàlla rafetaloon ci taar rafetaloon ko ci bind mu mel nu kenn melul ci melokaan ndax yàlla du yónni ku ñaaw ñett yàlla du leen yónni yàlla du yónni ku ñaaw du yónni ku ragal du yónni ku amul luy mbokk ndax li tax yàlla du yónni ku ñaaw ku ñaaw boo ko xoolee doo ko gaaw a sopp waaye day def ci moom taar ba boo ko gisee rekk la lay jëkk a frappé ci moom mooy taar ba danga koy sopp balaa wax danga koy sopp boo ko gi balaa daraa xew balaa jëf di ko sopp balaa wax daa ko sopp bu fekkee ku rafet la moo tax yàlla du yónni ku ñaaw waaw ku mel ni man déedéet bu la yónni dangay doon ku neex a xool ndax boo neexul a xool kenn du kenn du la fa xaar ba di la déglu waaw kenn du la fa xaar ba di la déglu su ko defee nag li lay jëkka frappé ci yonent bi alayhi salaatu wasalaam boo ne ko jàkk taar baa lay jëkk a yéem taar ba moo lay jëkk yéem rafetaay ba jekkaay ba moo tax yàlla mu yónni rek ku mu yónni da ngay neex a xool mboolem yonent yi ñoom ñépp dañuy rafet dañuy jekk moo tax nag alayhi salaatu wasalaam yàlla def ko mu mel noonu waaye ñi rafet ñépp nag mooy seen miis moom alayhi salaatu wasalaam kon daal fa jawharul xusni da nga naan yonent bi mooy mooy miis ñi rafet ñépp mooy seen miis mooy mooy euh, ki gën a góor yi ci góor ñi <coughs> jële nañ ci abi hurayrata radiallahu anhu mu ne maa raaytu axsana min rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam man daal musuma gis ku gën a rafet yonent bi musuma ko gis ñu ne ko nu mu mel mu ne ka anna shamsa tajri fi wajhihi rawahu tirmisi wa xayruhu abi hurayrata nee na musuma gis ku rafete ni yonent bi ñu ne ko nu mu mel mu ne dafa mel ni jant mooy daw ci jëbi ndax leer dafa mel ni jant mooy daw ci jëbi ci kanam gi ndax leer maanaam kanam nga dafa mel ni jant xam nga leeraay moom mi ngi yem ci jant alayhi salaatu wassalaam bi ñu laajee barraa mu ne ñu laaj ko ne ko akaana wajhu rasulullahi sallallahu alayhi wa misla sayfi ndax yonent bi kanamam dafa mel ni jaasi bu ñuy wax ci jublu nag mu xam nga jaasi dafay melax ngir eh, ngir leer ñu ne ko ndax kanamu yonent bi dafa mel ni jaasi moom barra mu mu tontu mu ni laa bal mislal qamar waaw bal mislal qamar mu ne déedéet kanamu yonent bi romb na jaasi dafa mel ni weer xamar nag mooy bu weer wi demee ba toll ci fukki fan ak juróom noolu mooy xamar mu ni nag moom alayhi salaatu wasalaam kanam nga dafa mel ni weer dafa mel ni xamar mooy weer buxaari buxaari yu moo ko solo ashraful xalq kenn du moom alayhi salaatu wasalaam ci beneen riwaaya ci muslim ci xadiisu jaabir ibnu samurata wax na benn waay laaj ko ne ko akaana wajhu rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam misla sayfi ndax yonent bi alayhi salaatu wasalaam kanam ga dafa mel ni jaasi mu tontu mu ne déedéet mu ne laa bal kaana misla shamsi wal qamari yonent bi kanamam ëpp na jaasi dafa mel ni jant ak weer mel ni jant ak weer kon yonent bi alayhi salaatu wasalaam ab taaram foo ko takk rek weesu na ko jële nañu ci jaabir jaabir ibnu samurata mu wax ni yonent bi alayhi salaatu wasalaam dama jàkkaarloog moom xool ko raaytu rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam fi laylati idxiyaan ci guddi goo xam ni weer wi dafa génn weer wi génn ma xool kanamu yonent bi alayhi salaatu wasalaam waaye nee na li ma gis mooy yonent bi kanamam moo gën a rafet sax weer wi waaw kanamam moo gën a rafet weer wi waaw nee na fa jacaltu anzuru ilayhi wa ila alqamar fa lahuwa kaana axsana fi cayni min al qamari kenn du Moustapha allahu akbar nee na bi ma xoolee yonent bi xool weer wi mu ne li ma gis li ma li ma yëg te gis ko tamuy li am mooy bi ma xoolee kanamu yonent bi xool weer wi gis naa ni kanamu yonent bi alayhi salaatu wasalaam moo gën a sax rafet weer wi ashraful xalqi kaana axsana fi ayni min al qamar loolu laa mën a seede man kon ya alayhi salaatu wasalaam ku rafetoon la il était très beau ashraful xalqi jëleen nañ ci Tirmizi ak ñeneen ñu ne aliyun ibnu abi talib karrama allahu wajha moo wax ni alayhi salaatu wasalaam kanam ga na mu mel muy décrire di melal kanamu yonent bi alayhi salaatu wasalaam mu ne yonent bi kanam ga ronwul woon ba mu ëpp ovalul woon moom daal dafa jël xaw a jël ron tuuti moom alayhi salaatu wasalaam ndax kanam nga dafa jekkoon ku jekkoon kanam la ku neexoon ak xool la ku rafetoon la moom alayhi salaatu wasalaam boo koy misaal daal da naan kanam gi dafa xaw jël tuuti ron waaye nekkul lu carré nekkul lu ovale ashraful xalqi lex dafa wàccoon bu reetaanee lex ba dafay noox moom alayhi salaatu wasalaam kanam nga dafa leer dafa yaatu jële nañ ci abi hurayrata radiallahu anhu mu wax ni kaana rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam asiila alqaddayni waaw asiila alxaddayni waaw walxaddul asiil moom alayhi salaatu wasalaam lexi dafa wàcc nooy bu reetaanee dafay am noox noox jële nañ ci xadis bu buxaari yu génnee ñu jële ko ci kaab ibnu malik mu wax ni alayhi salaatu wasalaam bu masaan di ree muuñ lay def day muuñ waaye bu muuñee day mel ni kanam gi daggitu weer la waaw daggitu weer la waaw isa surra istanaara wajhuhu ka annahu qitaatu qamarin wa kaana naarifu dalika minhu ashrafu alxalqi mu ne yonent bi alayhi salaatu wasalaam bu masaana muuñ bu masaana muuñ muuñam gu sew gu rafet googu nee na da ngay gis kanam gi day mel ni daggitu weer day mel ni tojitu weer ndax leer mu ne loolu la ñu xam ci moom de waaw jële nañ ci aishatu radiyallahu anha mu wax ni yonent bi alayhi salaatu wasalaam bu masaana ree day mel ni melax leer gi bawoo ci moom kanam gi day mel ni daggitu weer kookoy soxnaam Aïcha kooku lu mu wax ci yonent bi ki dëkkaale woon ak moom nu mu wax rekk loola moom kenn du ca dindi dara waaw mu ne isa surra tabruqu asaariru wajhihi ka annahu qitaatu qamar teddu yonent bi ashraful xalqi waaw il était très rafetoon la kenn mënul waxtaaram aha moom Aïcha moo wax loolu Aïcha nee na bu masaana ree muuñ nee dangay gis kanam gi mu mel ni daggitu weer waaw mu mel ni daggitu weer waaw mu mel ni nag waxtu wi dab nanu fii rek la taxawa taxawani insha allahu taala di leen jox rendez-vous ci beneen numéro fii weeru gàmm yi moom nooru zaman yëpp dañ koy def ci yonent bi weeru gàmm bi yëpp nooru zaman yëpp dañ koy def ci yonent bi alayhi salaatu wasalaam di leen fàttali numéro téléphone yi nga xam ni ku ñu bëgg a topp ci sunu programme wooteel ci 77 283 wala nga woote ci 77 531 00 04 seen mbokk seen xarit seen soppe imam Bathie Samb wa axiru daawaana an alhamdulillahi rabbil alamin sallallahu ala muhammadin sallallahu ala muhammadin sallallahu ala muhammad alhamdulillahi rabbil